asalaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum mbokk internet yu Medina TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar amaan mbégte ak contentement jàkkaarloo ak yéen ñëwaat tey seet ki nga xamante ne kenn dootu ko présenté si réew suñu yaay ki nga xamante ne moom mooy la grande voyante la grande guérisseuse ki nga xamante ne nee naa leen réew mi képp koo xamante ne nee nga benn fet fetkat rek moom nga ciy teg wala nga jiital ko ne moom mooy le numéro un dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñi nga xamante ne moom ñoo ñuy seetaan su ko defee ñu wéyal suñu waxtaan ay ca yaay booy taalibe Cheikh na nuyu fi maa ngi leen nuyu di la ziar maa ngi nuyu waa àdduna wërngal këpp di maa ngi nuyu waa Galsen People di nuyu waa Medina leen ziar maa ngi nuyu waa seen People di nuyu waa Medina TV mhm. di wax ni sama ñaari doom ñoo fi taje maam Saliw ak Moussa mhm. seen People ak Medina TV mhm. ma di lu nag yow di la ziar di nuyu waa àdduna wërngal këpp góor ak jigéen ma ak ndaw ku ci nekk ma fekk ko fam toog ni ko asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu sama yaay Fall yal na yàlla guddal fanam mm. di ñaanal sam papa yal na yàlla seral yi xam moo kum fa fekk ko fekk di ñaanal ñi ci lalu hôpital yi yal na leen yàlla génne ñi ci kaso yi yal na leen yàlla génne ñoom it yàlla def ci suñuy poos dara te ñu loo ko mm. barke alayhi salaatu wassalaam ayca am na solo yaay béy comme ñu koy defee saa su nekk rek balaa ñuy gën a xuus ci li nga xamante ne moo ñu tax a jóg mënuñoo ñëw bu fii te duñ wax ci actualité euh, dooree ko rek ci li nga xamante ne moom mooy euh, décision yi nga xamante ne président jël na ko ak le premier ministre kii Amadou Ba mi nga xamante ne euh, def na ko njiitam ci élection présidentielle yi nga xamante ne fas yéene nañ ko fas yéene nañ koo amal lan nga lan nga ñu ci mën a wax. waaw li ma ci mën a wax mooy naa fi ni leen. Mm-hmm. président de la su waxee loxo dina jëm gémmiñ te dina am tamit nu mu demee mhm. am naa yaakaar ni ba mu tànnee ka muy tànn gis nga li ci xew mhm. te nag dama leen di wax nag lu garaaw euh, parti APR APR moom mooy parti président Macky Sall bi mhm. ah néew ma duñu dem présidentiel dañuy dem dañuy voté présidentiel néew may duñ jël réew mi waaye réeroo bu metti dina am ci seen biir ak jaxasoo bu metti Mm. te itam dina am ñoo xamante ni duñ ci fekkee élection yi. Mm. waaw yaay daam loo gis. la ma gis yàgg na man man du ma wax waxuma waxu tey de. Mm-hmm. la may wax naa ko démb. Mm-hmm. dafa fekk ni leen ni wax waxaat du bari wax dangay fàttali ñi déggoon te fàtte wala nga déggal ñi déggul woon. Mm-hmm. waaye man affaire élection yi nii deux mille vingt quatre nii man pare naa si yàgg na. si leneen lay jàll di ko lijjanti. Mm-hmm. lu nar a xew ci kattanu yàlla incha allah ndegam yàlla dinañu may fekke beeg tal ko yàlla nañ ko yàlla may mm-hmm. ñoom mbooloom doomu aadama lu nar a xew deux mille vingt cinq laay wax mais deux mille vingt quatre dugal naa ko ci sama biir xàmb tëj ko pare naa ci. yaay doo ñu junjal dara si deux mille wax koy gañ. Euh, mille vingt quatre wax naa ko fi keroog nee naa leen Macky Sall bi muy jël réew mi kenn foogu ko woon président de la république. Mm-hmm. ba mu génnee deuxième tour ñu bëri dañ doon laaj kan mooy Macky Sall. mu ñëw jël réew mi suñu réew mi. lenn amatu fi lu ñuy préparé mm. lu fi ñëw lu nekk rek surprise lay doon ndax mm. yaa ngi may dégg mm. kon ñi fi nekk nii bu ñu yaakaar ci ñoom lu bari nañ leen toog toog xool wànnante mu nañ ñaan yàlla musal ñu ñu ko tal ko incha allahu fii la ñuy toogaat nee naa man kenn duma baar ci loo amul yaay dangaa ko de wax ji nga ñi fi nekk nii bu ñu am yaakaar ci ñoom waaw surprise dafa nar a am ci élection yi euh, bu fort sax Hmm. waaw mbaa du yuuxu dina jib fuñ ko foogeewul allahu akbar incha allah ah loolu suñu yaay ko wax te lu mu wax nee naa leen moom kenn du ko yóbbu baax man maa ko wax hmm. te gis nga euh, dafa am loo xam ne xel sax da koo nangu waxantuma la ak baatin wala jaayir hmm. suñu réew mi ñun moomuñu ñu du ñu téye dina pong pong yaa ngi dégg fi mu nii ku tiitul ku nekk ñun dañoo war a tiit ndax ñun Afrique lañ dëkk Mm. te ku nekk gis na li ñu wax ci réew Afrique yi fi ñu toll li fi nara xew. Mm-hmm. ñuy ñaan yàlla musal ñu ci ci barke mag ñu baax ñu fi tëdd ak barke alayhi salaatu wassalaam mm-hmm. mais waratuñu sax nekk fi di débat débat élection kii mooy toog kii du toog kii nañu garder suñu carte électeur mm-hmm. ñun ki ñu mën a jiite xam nañ ko te dinañ ko fan ay allah. ayca mi ngi noonu yaakaar naa ne loolu leer na yaay su ko defee rek ñu jàll ci beneen pàcc ba tey gis nga li fi jot a xaw ak. Ahmed Cissé mi nga xamante ne ñu bari gisoon nañ ko mu bokk ci mouvement Jamra waaye tam ñu gis ko rek ci yenn kàddu yi nga xamante ne ñàkk na worma wala mu ñàkk taalibe itam saa su nekk rek mu ci àddu ñu bari di ko claf loolee waral sax li nga xamante ne moom mooy Jamra daal di koy retiré ci mouvement boobu nga xam ne bokkoon na ci. xam nga man damaa bokk mouvement Jamra xam nga Ahmed Cissé man mosuma wax ci doomu aadama mais tey dama Ahmed Cissé dafa yabaate parce que yabaate mënta paase nga toog mm-hmm. kilifa diine buñ la wax nga capp ko baaraam fa aada buñ la wax na capp ko baaraam léegi nag loolu doyatu la nga yegg ci ki nga xamante ni moom moo waral lépp Ahmed Cissé dafa yabaate Ahmed Cissé dañ ko war a génne réew mi dëkku fi Gàmbi la dëkk mhm. yaa ngi may dégg dañ ko war a génne mu dem dëkkam bu demee dëkkam bu amee lu muy wax mu wax ko fa Ahmed Cissé nekkeewu fi lu dul yàq suñu njaboot gi mhm. la fi nekke Ahmed Cissé vulgaire na Ahmed Cissé wow na bët Ahmed <laughs> Cissé lu ko neex wax Ahmed Cissé boo waxee mu indi la ay aaya alxuraan lu ne lu ne lu ne gis nga Ahmed Cissé ba mu fi waxee dañu war a jaay ay protect ci jàkka yi mhm. ak jumaa yi pour sensibiliser ñu jàpp ko tëj ko li ñu koy tëj bàyyi ko mu toog ci réew mi mhm. ba pare télé yi jël ko site internet xam nga Sénégal fii ku fi bon ñoo la bonal mhm. ndax xam nga loolu Sénégal fii ku fi bon ñoo la bonal parce que da nga def lu ne weng ñu jël la tëj la laps de temps génne la site internet yi ñëw jëkk la seeni micro tey la sama doom yi dama leen di classe yéen ñii lu ci bëri nag lu ci bëri nag yéen la da ngeen ci am part de responsabilité parce que nit daf fi def lu nu wengam ñu tëj ko loo xam ne loxo day jëm gémme mu génn ngeen daw wutali ko dég ko seen micro mu waxaat la ko saf mm-hmm. dee xool ñu ngeen di dégg seen micro yi mm-hmm. dee leen xool ñu ngeen di dégg seen micro yi sëriñu triant yi di dóor nit ñi <laughs> ak genre amee sise yi nga xamante ni lu leen neex wax il faut ngeen éviter loolu mm-hmm. parce que loolu bien vrai que da ngeen di liggéey mais dafay yàq seen réputation yaay doguma la mu mel ne nag sénégalais ñoo bëgg lool de parce que sénégalais tey boo dugalee vidéo Ahmed Cissé amaana nañ koy seetaanee tey boo dugaloon tey benn vidéo boo xam te ne kee da leen di yet duñ ko seetaanee noonu waaw moo tax bëgg nañ lu bon kon sénégalais yi la bëgg nañ lu bon Sidi defuñu dara de parce que Sidi bu fekkoon ah, buñ dugalee non Sidi bu fekkoon buñ dugalee sénégalais yi boycotté yaay hmm. kon bu yàggee dootuñu jëlati parce que ñun Sidi ñu am nañ ci part de responsabilité mhm. yaa ngi mhm. loolu maa fii mënoo ko dindi mhm. man duma dem ci yow yow def nga fi lu nu weeg ñu tëj la génn nga mm. ñu def benn pip di génn na du ma dem ci yow yaa ngi dégg sur mm. internet dama leen mere deux points classe ma leen ñoom ñëpp samay doom lañ xam na ni man dëgg dama leen di yedd mm-hmm. mere naa leen deux points mm-hmm. mere naa leen ci ku am dëj mm-hmm. <laughs> ñu dem dégg ko micro la noo dundee naqar bi ak diw bi ni mu la def mere naa leen ci ku def lu nu weng ngay dem di ko dékk micro amul site internet buy taxaw Sénégal te doo fa duggee doo gis vidéo Mama Talibé Cheikh na man nee naa ñoom ñoo ma bëgg Mm-hmm. man tamit ma bëgg leen mm-hmm. waaye nag samay doom lañ il faut ma mm-hmm. raisonner leen des fois benn côté loolu dama leen ceebel Ahmed Cissé ñoo ko may doole te tamit li ñu war a interdit mooy ko ubbeeti site internet ñu xool ba xam ndax yow liggéeyal tax a wala lu ni weng Ahmed Cissé bu ko site internet jëlul sax mu toog ci paas euh, moom day live ay live fa wax lu ni weng waaw pour lan pour lan dama leen a classe tey moom dama leen a classe <laughs> waaw parce que samay doom geen Ahmed Cissé day toog TikTok euh, direct TikTok yaa ngi dégg wax lu ni weng mm-hmm. kon Ameth Cissé moom mooy feebar bi mm-hmm. feebar bi moom mooy Ameth Cissé dañ ko war a faj mm-hmm. Ameth Cissé yàq na suñuy doom ñoom ñëpp suñu doom yëpp jàngal na leen fawum taat nan ma balti ni ñuy waxee suñu doom yëpp jàngal na leen fa jàngal na leen góor jigéen ay góor booy dem sa jabar nii jigéen booy dem sa jabar nii góor booy yegg nii jigéen booy yegg nii jigéen yi façon la loolu mooy lan suñu Sénégal mooy lan ana suñu diine su suñu lislaam ah ni ñuy demee di yóbbul télévision yi Euh, CRA ni muy contrôler télévision yi noonu la war a contrôler ñi nga xam ne ñu ci séddi di wax lu dul yoon mhm. ndax yaa ngi may dégg dafa am yoo xamante ni c'est tro mhm. trop c'est trop amet trop c'est amet xaw ma amet trop xaw ma amet bu yoboo ñu tiktok ma amet siise c'est tro mhm. amet siise dañ ko war a génne réew mi mu dem ñibbi réewam Gambie dafa am loi comme ñun suñu Sénégal gii ñun ñu fi dëkk lu ñu ñemewul ñun étranger yi ñoo fi ñëw di ko def lii amet siise di wax fii tey ji benn doomu réew mi bu ko waxoon jël ci ko man mi su ma ko waxoon mu jël si ma kon lan tax amee si sa sañ a di ko wax nanga ko delloo loo am na fa bu ko fa waxee ñu def ko loo xamante ni dootu ko waxati de man dund naa Gambie mooy sama deuxième dëkk Gambie sama deuxième famille fa la ñu nekk xam naa fa xam naa fa bu baax dama fay dem li may def Sénégal laay def Gambie kon amee si sa la moom ah gisoo ba fi waxee waaja lu mu warul wax ay njabootam dañ ko jàpp rukk ko ba mel ni dege dañ koo rukk ba mu nooy mu jël loolu def ko arme nag naan bañ ma dóoree bañ ma liwee seetaat naa ko ci télé bu mag bu nekk fi Sénégal benn télé bu mag bu nekk Sénégal boo xam ne ñëpp moo ëpp visibilité mu toog naan man dóor yooyu ñu ma dóor sax dama sant yàlla mm. ndax bu dul woon dóor yi tey du ma du ma doon amee succès bi ma doon mm. ndax tax na waa àdduna waxuma waxuma Europe waxuma Asie waaye àdduna yëpp may déglu di ma seetaan mm. may jaay sama garab muy jar cinq cinq di jar dix dix ñëpp a koy wër kon ça veut que ni moom li muy def moom moo ko tay Ahmed Cissé mooy góom bi nañ ko faj mu wér benn yoon mhm. wasalaam nañ jàll ci leneen mi ngi noonu mbokk yi yéen a ko déggandoo sama yaay daa mel tey dafa aalu waaye noonu la rek euh, gis-gisam la doon wax ci mbir yi nga xamante ne xew na ci réew mi ba tey yaay rek ñu si benn point mu génn àdduna ki nga xamante ne euh, comédie artiste la woon plutôt nekkoon cinéaste muy Jean Paul Dalmeida gis nga bi nga xamante ne jógee na feek léegi ak euh, coow li nga xamante ne am na ginnaaw enterrement bi rek ñu yëkkati ay kàddu ne que ku ko bokkulul diine waroo ko ñaanal wala war nga ko ñaanal mu xaw a indi polémique ci réew moo xamante ne euh, dafa am ay chrétien am ay musulman non seulement loolu mais dafa am euh, jàmm ak ak nekk bu rafet boo xam ne moo dox entre ñaari religion yooyu xam nga dañuy wax dialogue lislaam chrétien mm-hmm. man loolu bu fi jógee man bu yeboo ñu wutal ma réew mu ma jëm mm-hmm. man jullit laa catholique laa mm-hmm. waxin la nag dégg la laaj man sama yaay bi ma jur naar la cent pour cent sam papa bi ma jur séeréer la mhm. sam papa famille yépp catholique lañu mhm. ñépp catholique lañu mhm. man damay feete quinze août man damay feete trente et man damay feete Pâques damay feete feetu jullit yi parce que samay bàjjen samay cousin samay cousine ay catholique lañ man jullit la lan mooy catholique ñu waxee ñu ni julli gi dañu am complexe ci catholique yi naan catholique bu ñu demul àjjana duñ dem àjjana effectivement amuñu complexe dañoo wax dëgg la plupart jullit yi ñi ma ko mën a wax war a wax dañoo triant dañoo iñaan dañoo bon dañoo soxor man jullit laa jullit ngay gis moroomu jullitam bu dem liggéey moroomam ni na dee na dof na yanu ay dàllam wërsëgam na ko ñàkk catholique du def loolu mm-hmm. man dama dund ci catholique yi dama xam catholique mm-hmm. catholique du def loolu mm-hmm. li mu yéene boppam la yéene moroomam du wax waxu jàmbur catholique du jow bu la lebee da fay su ngeen siñantee su ngeen siñantee defal ba lii dinaa la ko defal bu amee ma jox la li bu loola amee mu jox la la mu waxante yow ñun jullit ñoo ñëw te man atal ah, bi man na maa feebar faj ma nangam laa lay faj waa sama wér fay la nga faj faj ko mu wér bloqué la mhm. yaa ngi de wala mu jox la dërëm nga faj ko mu wéex a weer weer la catholique mhm. du weer moroomu mhm. moroomu nitam dañoo am sutura jullit yi nag am nañu ko ci am de waaye boo waññee cent <laughs> ah man soo dute ba tey dem ca catholique ya de man li may wax dama ko ñeme dama ko assumé parce que dama ko dund dama ko doon man catholique laa man Cheikh na Cheikh Abi moo ma defar konoon tey jii damay dem ànd ak ñoom église ba dama am ay mbokk catholique mm-hmm. samay cousin samay cousine ñëpp catholique lañ wax naa ko ba tàyyi site internet boo tàppee da nga koy gis mm-hmm. man Noël damay defar sama kër ba mel ni njarndeem samay sapin de góoma mm-hmm. de togg samay togg séddale dama assumer li may wax dama ko ñemee moo tax nag kaay wax la leen des fois nag jutoo jukko ceddo ji day jóg xam nga tax jukko ceddo di jóg man duma tooñ te bëgguma kuy tooñ yàlla dafa ne lëkkum diini kum wal ya diini mhm. ku ne na nga topp sa diine bàyyi sa diine moroom ku ci nekk sa diine ba ngay dund dund ko nga bàyyi sa moroom mu dund diineem mhm. Sénégal mënuñu fi génnee katalik yi mhm. mënuñu fi génne jullit yi dëkk jullit la ak catholique nañ ñu dimbali rikkuwaay buñ fi indi rivalité nañ ñu bàyyi ñu nekk suñu jàmm bu Pâques jotee ñu danse bu tabaski jotee ñu julli ji nañ ñu bàyyi yaa ngi dégg yàlla moo nu gën a jege suñu buumu xol te moo ñu booleeg ñoom moo moo ñu moo jël ñoom def ko ci ñun jël ñu ñun def ko def def def ko ci ñoom hmm. kon lan la li problème bi Jean Paul Dalmédara euh, kenn du reer reer boo warul reer waaye Sénégal nag léegi moom ñu ngi xañ doomu aadama yi seen reer hmm. xale bi cat rek ko ko rey parce hmm. que Cheikh Mohamed Vadel xale bi cat dong ko rey cat day topp nit ba ci biir bàmmeel hmm. moo tax soo génnee àdduna ñu naan yàlla bu ko cat jiitu xale bi cat rek a ko rey hmm. ndax xale bi doo ko seetaan télé mukk ci moom hmm. doo ko gis muy dox mukk tawaxoo ci moom moo tax damay dellu si li ma waxoon ak ci ginnaaw tey gis naa samay mbokk nee ay seetkat lañ ñu ngi toog ci tele bi di ko challenge di ko wax maa ko fi waxoon déggoo ma de am ci sama deux millions de vues ya ci àdduna xale yi di ma wooyee fu ne naan ma mama loo wax ci tiktok bi man leen tiktok bi xale bu ko ci bàyyiwul sa ndey du lekk sa njëriñ. Mhm. ndax dafa ànd ak cat noo gën a posté vidéo rek di gën a am caawate di sol sumeeku di posté. Mhm. buñ la yónnee mburu sax nga parce que ca mburu ndekki ba lay doon yóbbu. Mhm. déggoo ma de. yaa ngi mu mel ne la nga waxoon moo ngi. continué ba tey moo am ba tey xale bu ci bàyyiwul tiktok bi say mbokk dinañ la jooy ñun ñi di toog ci tiktok bi sax. man damaa par personnel de man damaa pare démb tey door a ñëw. ndax dégg nga ma. rek laa yaakaar te moom laa wóolu moom laa teg sama mbir nag mhm. doon séeréeru saltige doon séeréeru ceddo mhm. déggoo ma de di def li may def mhm. kon nañu moytandiku tiktok bi nañu moytandiku sinap yi nañu moytandiku statut yi dañ leen ci sacrifier est-ce que am nga xam-xam boo xam nga ni am na xam-xam boo xam ne tey su ma yóbbu woon sa photo bëgg a yàq sa bët bi dama koy yàq yaay xaw ma woon loolu de sa photo rek ma yóbbu ko tey bëgg a yàq sa bët bi dama koy yàq su ma jëlee pusani ko ca duut fa nga toog def la may def fa nga toog nga koy sentiré ma yee ni nit ñi nag tey ma wax ma def révélation bu garaaw photo rek dañ ciy liggéey nit ba ko hmm? billahi lazi la ilaha illa huwa yaay da ngay gis ñoo xam ne des fois dañuy am whatsapp mais mën nga toog un an duñ def profil duñ def statut duñ def dara waxtaan lañu parce que dañoo bëgg a oh, sama genre gi nga xam ne nag chaque jour ñu rangale fukki photo dix la ñuy par dix ñuy dugal ah, dañoo bëgg a ñooñu di bañ a def profil ñooñu di bañ a def statut dañoo bëgg seen kii. Ah. photo rek photo rek photo rek rek mën nga cee lor doomu aadama bi photo. Ah. mën nga cee lor doomu aadama ndax yaa ngi may maa ngi lay dégg yaay. allo téléphone ma wala allo maa fii nga ne ma allo maman man la ci loonee nga ni maa ngi ma def la li ma lay def. daa dégg sa voix rek def la ma yaay yii baax na nga koy wax nag pour ñun ñi nga xamante ne ñun. yëguñu lu xew fois man sama waa kër dama laa ne bu ngeen xamul bu leen mm. ko décroché. Mm-hmm. numéro seen téléphone personnel ñoom numéro bu ñu xamul buñ ko ci décroché. Mhm. ndax yaa ngi may dégg. Mhm. parce que nit ñi bàyyiwuñu dara mu dem. te kaay ma wax la xam-xam dafa bëri te bokkul. Mhm. naa ngi ci saalam lay defee interview. enjoy life am bu seet parfum lay na ñoo xam ne bala ñoo seet naan sàngara. maa ñu naan deret maa ñu diwoo ko. xam-xam dafa bari bokkul. nan leen mooy tandiku nan leen mooy tondiku visibilité bu ëpp mm-hmm. surtout ci xale tey yi nga xamante ni juddu tey màgg tey yi lañu mm-hmm. da ngay gis xale boo xamante ni deux mille la mm-hmm. yaa ngi dégg wala deux mille quinze wala deux mille seize wala deux mille dix sept bu la nee am na quarante ans nga ni waaw day élancé wu ni fukk fukkóoral mag ndayam ci jëmm kon kooku rek ndayam dafa war a am fu mu jaar ak moom pour doomam toog mais bu fekkee jaarul ak moom foofu pour doomam toog mu bàyyi doomam mu nekk ci sinab bi nekk ci estati bi nekk ci tiktok bi barke Seydina Mohamed dafay faatu fayal laawu man maa la wax lii. ndax xale yi moytandi ko TikTok bi sinab bi waxati naa ko. Mhm. te kaay max la dee dafa des. Hmm. yaay révélation ngay def de. bu baax sax tey yaay dafa rakkaaju da maa gisul nii. Ah, yaay tey man dama laa ñemewul sax. ah. <sighs> dee yi dafa des. ah yaay. waaw deew célébrité. Hmm. célébrité. Ah. deew kilifa yi. Hmm. dafa des. ci 2023 bi ñu ne. laa ilaaha illallaah cinq mois moo ci des xaw ma. dana mel ni njar yaa lan la nit mën a def. nawet bi ñaata weer la taw. nawet bi kañ la waroon a commencé taw ñaata weer la taw Dakar ñaari weer la taw a gum de. Mhm. te nawet normalement mois dégg naa trois mois la ba dugg ca quatrième ba mu door a jeex. Mhm. lépp gaaw léegi. Mhm. bés bu la romb danga koy ñàkk. dañ leen sauver suñu bakkan yi. dañ mhm. leen moytandiku te ñuy génne sarax ak bisimilah jàllal ci leneen. ay mbokk yi mi ngi noonu kon yéen a ko déggandoo loolu moo nekkoon actualité yi nga xamante ne saa su nekk suñu toogee ak ñu yaay la grande voyante nee naa la du ñàkk ñu wax ci li nga xamante ne moom mooy tolluwaayu réew mi su ko defee dañuy tëj parenthèse boobu daal di jàll ci li nga xamante ne nee naa la man sama yaay tey ñemewuma ko si yaay yaay dañuy jublu ci li nga xamante ne tey euh, min nañ ko muy wàllu yi nga xamante ne da nga ciy yëngu tey dafa am ñoo xamante ne dañ na ma keroog émission bi ñu defoon mag yow dañ ci kontaan mais dafa am point boo xam ne laalu ma ko nee nañ ñi nga xamante ne dañoo yor place bëgg bayre des fois am na ñoo xam ne dañuy ubbi place mais dañuy xëy suba ba ngoon duñ gis kenn bëgg njarte daal maanaam seeni affaire di dox di gaaw lan nga leen mën a indil. ñu bëgg bayre yor place place bees boo ko ubbee da nga def dara. Mhm. képp ku ci ubbi sa place même boo ko luyee denc karo ba ca digg ba nga jënd xaal bu ñor xom ko fa suul ko. Mhm. fanaanal bu wow bii. Hmm. boo xëyee nga saraxe ko. yaa loolu danga koy may ñi lay seetaan dama koy maye gratuite waxuma kenn mu ñëw ci man. yow kese yaa mën waaw tey moom mooy loolu. dama koy maye gratuite nañ def loolu. Hmm. suñ ko defee incha allah rabi dinañ lépp lu naroon ay di dugg ci place ba dana dem te danañ jàtte. Hmm. dama fi toog benn année man ni damay maye examen yi muy lan deux mille deux mille deux mille vingt deux mille deux mille dama fee toog ma ne damay maye examen yi. bépp xale bu bëgg def examen na ñëw bu ñëwee dama koy maye examen dama xale yi ci katoo ma ñëw ma may leen examen yi barke Seydina Mohamed est ce que xam nga examen ku ma ko defal doo échec. Mm-hmm. même ba fekkoon yaa gën a ni laar ca ba boo ñëwee ma defal la big mm-hmm. may dégg xam nañ ma ren jii rek dama ci am ay élèves élèves élèves mm-hmm. ku ma may examen doo ku ma may big man ku ma defaral big nga dem bind ci sa contrat CV doo échec. nga ñëw ma defal la big nga dem bind sa CV déposé. force dañ lay jël. muy si entreprise lu mu mën a entreprise fu mu a doon demande de visa looloo tax ma ñeme nag tey nag tey nag da nga ma laal ah. yaay tey bugguma dara sedd. ba ci demande de visa nga ñëw ma jox la big. Hmm. ñi nga xam ne dañuy déposé ba tas. fu ne ñu dugg fa boo ñëwee defaral la ko doo échec. doo échec yéen a ngi koy dégg. sur internet yi may waxee. rus naa fee fenn. Hmm. samay internet yi nawle la am naa ay doom yu toll ni ñoom. Hmm. ñu jox ma cër rus naa mukk néew ma du ngeen am revenir bu bonte waaye képp ku ma ko wax bu leen ci bañ dara fekkee mhm. ca moom lay mucc <laughs> képp ku ñëw ni leen seen yaay ji ngeen jëloon lii bu leen ci bañ dara gita ŋaas leen fenee ca moom lay mujj képp ku ma may big nga bind ci sa CV wala nga dem def ci examen mhm. wala demande d'emploi doo échec mhm. visa lee kenn bindatu ko ak papier mais bañ koy bind ak papier bu ma la joxee bi nga dem bind papier doo échec mm-hmm. parce que online lañ koy defee léegi mm-hmm. man damay demandé visa xam naa mm-hmm. ndax lay dégg yaay euh, maa fi bu fees du yëmbatu mais nag euh, li tubaab bi wax naan chaque chose en son temps waaw ayca maay intellectuel mi ngi noonu intellectuelu seetkat yi mi ngi noonu la grande guérisseuse nee naa la moom dane pat boolewul daraa ki wax ku ko mën ak ku koy jéem yàlla xam na ne duñu benn te ku ñëw fii ay ku ñëw fi xam ne daj dëpp bi fii la nekk yaay ba tey rek dinañ wax ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg am doom yaay am na ñoo xamante ne sonn nañ sëy nañ juróom-ñetti at ba tey mënuñoo am dara daal da ngay ngénte suba waaw ah, dinañ ñëw ci ngénte li ngeen ñëw yéen ñëpp mbokk internet di ci ngénte li ah lii mama taalibe seex na rek a ko sañ aja yaay doom doom dafa am ay façon Mm-hmm. yoo xamante ni su la dalee rek mm-hmm. man taal bi seen du ma may doom mm-hmm. te loolu sax man ngi gëstu sama fit may na ma ma essayé ko yàlla suturaal na ma ci mais réussite bi moo dul bëri mën nga ko essayé ci nit ñu bari comme par exemple cent personnes doo am résultat lu dul dix te man bëgguma loolu man bëgguma loolu muy tromperie bouchée bu fekkente ni da nga mës a sëy nga am benn doom nga taxaw Mhm. da ngay dem hôpital nga xool ndax sa trompe bouché wul ndax sa toog tàggu nen baax na. Mhm. sa jëkkër xool manuyam mhm. bu fekkee lépp ok na boo ñëwee bu ma la defalee incha allah trois mois bala ma koy mat da ngay jàpp ëmb. doo ko fay dara nag bu fekkente ne rab moo la ko def soo da ngay am ay sarax da ngay génne say sarax su fekkee feebar la boo ñëwee dama lay faj doo ma fay dara bu fekkee rab la da ngay génne say sarax doo fay dara. ma defal la ba nga am doom bu dee dañ la liggéey boo ñëwee dama koy dindi ci kàttanu yàlla. nga am doom. Mm-hmm. bu dee nag munoo am doom munoo am doom du ma ci jéem dara. Mm-hmm. ndax ku munul am munul am. Mm-hmm. xanaa leer na leer na mais comme tey par exemple bu nit ñëwee euh, da koy xoolal bu fekkee koo xam ne mi ngi sëy musul am doom xam nga kooku noonu du xam ndax mën na am doom ndax da koy xoolal ba pare. man bala may defal nit dara dama koy seet. man man du ma tëb rek nga ñëw ne ma maman lii laa bëgg dama la waa lii laa koy defee nii nii ni non non non non man damay seet. soo ñëwee rek may fay. ma seetal la soxlaw ma na nga wax ma sa problème mhm. man boo amul doom ma la xoolee maanaa la mosoo mhm. wala lan mooy sa problème doom mhm. wala yàlla may na ma ma seetal la defaral la li ma la war a defal bu mën naa la faj mama taalibi Cheikhna nag doo ko gis rek nga tëb ni ma ngay dem ci mama taalibi Cheikhna utile yi danga may woo téléphone bu dee war a ñëw ci man dama lay jox rendez bu dee waroo ñëw ci man dama naan la waroo ñëw ci man comprendre nga bu dee mën naa la faj man mën naa la faj seet sama seet bi may seet jarul muy déplacer kenn dëkk dëkk Mhm. soo toogoon ba ginnaaw géej. Mhm. amoo réseau ñuy vocalante soo ma ne ma seetal dama lay seetal. waaye est-ce yenn saa yi jot bi dina yomb comme pour jot la yow. man ku ma woo soo ma jotul di nga jot samay assistante. Mhm. man samay doom yëpp ñooy samay assistante ñooy samay secrétaire. juróom benn téléphone foo boo ma jotul wooteel fii. gis benn numéro rek jël ko que benn numéro mën ko jot jël ki fii ba déwén doo ko jot saa yoo koo fekk mu mu saturé. jël numéro yëpp bu ngeen làmbee fi jotu leen ngeen làmb fee. ku ngeen jot incha allah rek bu leen ko xeeb. Mhm. wax leen ko li ngeen bëgg ci mhm. bu wax parce que aussi tamit day am ñu woote daan dama jël rendez-vous nga jox leen rendez-vous ñu yéen da a ñëw ba fii jóge sari dëkk dëkk ngir seet dong. Mhm. danga war a mën a toog mu seetal la. toogal fi nga toog muy Europe muy Asie muy partout dans le monde Sénégal fépp toogal fi nga toog. laajal mama taal bi Cheikh na lu muy seete nga dugal ko mu seetal la barki dem na am na ku ma arnaqué. ñu tudd Cheikh la tudd waxoon naa la dinaa ko wax parce que bu doon man maa ko arnaqué daf daf daf daf daf daf may weer mhm. bërki dem am na ku ma arnaqué Cheikh mhm. dafa dugg a seetam ma seeta ko ba pare ma fàttee retiré xaalis bi mu mu mu jëlaat ko Wave mhm. waa Wave damay lancé message waa Wave nañ bàyyi li ñuy def nit day woote damaa dugaloon sama xaalis rek ñu delloo ko xaalis ba xamoo lan la séqaloon kooku dégg nga dafa am ñoom dañoo triant Mm-hmm. waaw nañ jàll ci leneen ayca mi ngi noonu kon yaakaar naa ne explication yooyu mu joxe ci pàcc boobu leer na naa ñi waaye ba tey yaay rek comme ni nga ko waxee dañoo nekk si réew moo xamante ne soxor ak iñaan dafay bëri yaay nit ñi ñi ngi sonal nit ñi nit ñi ñi ngi yàq nit ñi tey jii da ngay gis nit koo xamante ne day gis benn nit du ko neex mu sànni ko koort dangay ngay jékki-jékki rek sa tànk am benn picc bu ndaw yaay man gis naa ci ñoo xamante ne ay détails yu ndaw yooyu moo yàq seen àdduna alors que ay koortu lay doon mu nekk loo xamante ne mi ngi bëgg a bëri ci réew mi tey jii ki nga xamante ne loolu daf ko dal hmm. euh, su ñëwee si maman Talibé Cheikh na yeen résultat la fi mën a am waaw xam nga problème bi mooy xam hmm. moom hmm. kenn mënul wax bañ dégg ndax yaa ngi may dégg mënul wax bañ dégg ndax yaa dañuy def lu leen neex soxor bon iñaan di kort nit ñi yow nga def sa bopp loo xam ne ku la liggéey dee man loolu laay xelal ñëpp maman Talibé na am na sangat boo xam ne dala koy defal nga boole ko paaka bu ñawagul ak juróom-ñaari doomu kaani nga sangoo ko soo paree nga delloo si ko paaka bi ak kaani dafa am fu mu koy def nga sangoo ko sangat bi benn fan lay doon benn yoon ba koy sangoo képp ku la toog ci sëriñ donte ne say bi la jur la liggéey la ñu fi daawa ko hmm? loolu mooy solution bi yaay loo wax yaay waxaatal fa la réew mi toll delluwaat ci yaay am sangat boo xam ne dama la koy jox nga boole ak paaka boo xam ne daggagul dara hmm. paaka bu bees hmm. ak juróom-ñaari doomu kaani bopp golo kaani bu sew dafa am kaani bu tudd bopp golo ah? mooy yooyu mel ni bal yu tuuti nga boole ko sangoo ko benn yoon delloo si ma kaan yi ak paaka yi dafa am man fu ma koy def déggoo ma de. Mhm. képp ku ñu fi daawa ko. loolu la jur la. ah waaw ayca yaay foofu foofu la mbir yi. foofu la réew mi parce que dañoo soxor. Mhm. maa fi macha allah danga miñoon <laughs> nit da lay gis nga miñoon. Mhm. nekk ci sa yoon di dem car macha allah sama catu sama catu moroom. mu daal di jóg dem yóbbu la ci sëriñ liggéey la. déggoo ma de. dëgg la yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg di xoolal. dama bëgg muy feebar yaram bi tàng muy jeex mm. bopp bi metti muy miir mm. bu mu tara si si micro doomu xaraam la dama gis dafa am euh, avenir mm. daf may lii daf may laa liggéey la suba soo xëyee bu la zaal ne kar ne am nañ interview sa biir metti wala zaal ne la kar am nañ interview sa bopp metti wala damaa tayal maa ñëw wala damaa tayal maa ñëw bu la naree forcé ngeen xuloo ca fa réew mi toll aar leen seen bopp mi ngi noonu yaay kon yéen a ko déggandoo yaakaar naa ne moom lii dara gënu kaa leer euh, te ku ko def itam mën ngaa mucc. man da ngay mucc ba muccaale te gis nga sangat boobu. Mhm. bu fekkente ni yow da nga nekk yow ak say doom. Mhm. boo ko jëlee mën nga ci sangu sangu ci say doom. jeex na. ayca mi ngi noonu na ñëpp daw kon ñëw protéger seen bopp parce que foofu la réew mi toll yaay ba tey tamit ñu des ci loo xamante ne muy wàllub cat waxoon nga ci sànq cat sonal na ñu bëree bëree bëri ñu bëri Euh, dañuy dañuy am teranga seen teranga di ruus ñu naan dañ maa liggéey et tout fekk cat moo koy def comme ni nga ko waxee jigéen des fois da ngay toll noo xam da ngay mel nu la neex maanaam mais jëkkër sax doo ko mën a am alors que cat bu bëri moom moo koy def tey nit koo xamante ne bëgg na mucc ci cat ñëw si yow lan la mën a xaar. waaw sangatu cat man maa faj cat ba mu wér. Mhm. cat moom képp koy lekk xorom su ba soo xëy da ngay am cat. Mhm. waaye li bon mooy cat bu sax ci yaramu doomu aadama. Mhm. doomu aadama day sangu doomu aadama. dafa war di tooy xepp war ndax yaa ngi may dégg. Mm-hmm. wàññi cat bi ci sa yaram ba nga xamante ni cat bu la dalee du la lor. Mm-hmm. ndax cat moom wallahi lazim moo gën a bon sax li ma laaj léegi muy liggéey cat. moo mm-hmm. toppal Saliou mii rek naan ko Saliou sa site internet dafa am vie sa site internet da nga xëy benn gi Saliou da dugal vidéo du am une benn vie du ko am <laughs> mooy mu mel ni ka doon posé candidat dem voté dem élection jot mu dem ca indi ba woote jabootam woote ay xaritam woote ngoon jot ñu ni ko benn voix nga am mu crise cardiaque noonu la fàllu <laughs> waaye waaw looloo fi am cat la mm-hmm. cat dafa bari cat dafa doy waar mm-hmm. te gis nga ne suñ jamono léegi gii dañ lay baatin mm-hmm. de gooma de di la catu ñaar lañuy yëpp yooyu yëpp la ñuy boole Cheikh Mohamed Vadan taaliba Cheikh na ba muy war taaliba Cheikh na xam nga man moom gaa man moom man damaa belende kenn mënu ci yow dara allah yaay doo def ne yow est-ce yàlla doo ma belende man suñ mënoon ci man dara naa bu yaa est xam man ñi may déranger dafa bari Ah, dangaa xew nag. man ñi may déranger dafa surtout ci suñu milieu bii. ñi ma ciy déranger dafa bari. Mhm. mais benn man yor naa xol bu rafet. Mhm. ñaar am na ñaanu jur mhm. ñett maa ngi sant yàlla yaay. Ah, am na loo xam ne doom kenn du ko wax ci écran def ci code waaw dama koy côté waaye daal de tout façon am na loo xamante ni war nañ ci jóg suñu réew mii soxor nañu iñaan nañ bon nañ iñetti nañ kuy dem lañuy ñuy bañ a gis booy dem ñu leer leen da am yoon ñu fàdd la damm say tànk hmm. raam du la yeggale hmm. puus puus boo am ñu bënn pëno ya dañ lay topp ba yomal xiyaam hmm. fii ba nga dee te duñ la bàyyi de boo oh. deewee ñu continuer di wax fii dañ lay topp ba ba ñu dugal la si bàmmeel bañ la isi repos wala ñu génne say vidéo déggoo ma de bàyyiwuñ la ndeysaan yal na yàlla musal ci noonu rawatina nag noonu poqataan xam nga li noonu pokataan. ah li loolu yaay noon bu dee ndag yow di xam sa lépp. Mhm. yow kaay ma la ma fi chéri ku la xamul mënu laa yàq. Mhm. tey man bu ma jugoon di la yàq yàq naa ko. Mhm. ku la xam rek moo la mën a yàq. dem ci sëriñ yóbbu sa tur sa tur yaay mooy li kii woy ay da sàmm day sàmm. fekk xale buy baax di baax di baax di baax di baax ba war a baaxaaleel ay bokkam. nga dama ay tànk. yal nañu yàlla musal ci noonu. amiin yaay yal nañu yàlla musal ci noonu. amiin yaay waaw. Aïcha yaay kon est ce que du ñu tëj pàcc bii rek. ñu tënk tënk tëj wax nga wax nga gaañi ni yaay waxam ju bari jëm seetkat la. ñoom xam nañ ne yow seet yow seetkat nga moom pour man réew mi moom kenn dootu ko naam laam laamee. Ah. yow mi wax nga gaañu ni yaay day jaay produit fii la ñuy ñëw nag yaay. Ah, dañuy tëj rek cercle bi nga xamante ne ña nga ca woon. <laughs> muy wàllu ñaan nee naa dañuy tënk rek ndax lépp xaju fi waaye comme ni mu ko waxee wàllu seet wàllu sirab wàllu bayre wàllu cat wàllu bëgg am jëkkër wala bëgg am doom wala ku bëgg ñu tax dëddaleen bu nekk si yow nga bëgg koo dindi ak lépp loo xamante ne dafa tënk wàllu boobu rek kenn dootul laaj ku ko mën ci miim réew ndax nee naa leen ku ko mën ak ku koy jéem duñu benn la grande voyante la grande guérisseuse macha allah sama yaay taalibe Cheikh moom rek moom moo ko mën ci miim réew yow dañuy dugg ci deuxième partie bi mais produit yi nga xamante ne yëngal na réew mi les produits produits miracle de Talibé Cheikh man sonn ci waxu produit bi. ay ca miracle bi noonu miracle bii nii moom mooy puissance. puissance et vérité. merci beaucoup mooy kattan ak dëggu. dëgg la bi suñu yaay Cheikh na. mu amul effet secondaire produit bu naturel. te lum la xas ba may du ko nangu. fait à base de plante. merci beaucoup amul benn effet secondaire. Mm-hmm. lum la may du ko nangu yaay bii lu muy servir. bii nii dafa baax ci góor. Mm-hmm. su fekkente dafa am góor ñoo xam ne seen awra yi day dellu. Mm-hmm. bu fekk sa awra day dellu wala bu jugee du dëgër wala booy dem sa soxna da ngay gaaw a pare. Mhm. bii moo ci baax maanaam impuissance sexuelle olof naan ko néew kàttan bi moo ci baax ak boo gaawee yegg am na ñoom dañuy am kàttan mhm. mais suñu dem seen jabar bi simlaa rek pare nañ mhm. bii moo ci baax ayca muy produit bu naturel dañ koy utiliser comme huile nga utiliser huile nga koy utiliser mi ngi noonu pommade boo xamante ne impuissance sexuelle moo ko tax a jóg naturel à base de plante amul benn effet secondaire bu fekkee sa awra dafa dafa yolom wala da ngaa gaaw a daanu. Hmm? bii moo ci gaaw mbokk yi ngeen ñëw seet si maman Talibé na ci impuissance sexuelle. acca yaay xuusal. ah yaay mbir moom boo koy wax dangay jaar ci digg bi mu leer naa ñu parce que am na ñoo xam ne danga leen expliqué ba pare ñu wawaat la bëgg nga tojaan kii bi waaw yaay waaw yaay nag mënut a ñàkk ah, xuusal waaw xuusal rek ah, xuusal ñu tënk ko après man ma dem def sama liggéey pour ween la mhm. ak hanche ak partie intime ayca yaa ngi dégg mi ngi noonu su la mayee ween may la hanche mm-hmm. mën nga ko diw sa fii mm-hmm. mën nga ko diw sa kanam mais moo tax ma koy leeral waaw léegi yow loolu man man ngi noonu kon bi mooy produit bi nga xamante ne mooy la gamme chirurgie nee naa leen réew mi ñu nekk kenn jëlatu kenn jëlatu fi vol di dem Maroc ba Tunisie naan da ngay jeex na ci mim réew produit bu naturel baa ngi nii amul benn effet secondaire bu fekkee sa ween dafa daanu wala da nga am ween xam ne yu ndaw la nga bëgg mu rëy wala bu fekkee da ngaa bëgg a nekk jóge premier ma dem double jongoma bii ngay utiliser am forme bu baax bu belli bu jongoma muy produit miracle mbokk yi di fàttali ne amul benn effet secondaire mm. produit bu xel la fait à base de plante ak herbe ayca yaay jabet miracle jabet baa ngi nii ayca bi mooy miracle jabet mm-hmm. képp ko xamante ni sa suukar dafay yéeg mm-hmm. même bu doon yéeg bañ tere la sax ngay def régime mm-hmm. sama garab bi boo koy jël bu defati régime da nga koy jël matin midi soir kuddu kafe nga def ci demu verre ndox bu baax Mhm. teg ko mu teey nga naan ko sànni kii garab bi doo ko naan mhm. yaa ngi dégg mhm. matin midi soir bii moom dama ci am retour bu yéemee yéemee yéemee boo xamante ni musuma def retour ci sama euh, vidéo mais bii damay def sama retour parce que xam nga nit ñi boo leen di wax te doo leen woon preuve rek duñ ko gëm léegi nag bii dama ci am retour bu yéemee yéemee yéemee yéemee parce que ki ma ko jaay man lundi laa ko ko jaay lundi Euh, mardi mercredi jeudi vendredi tey la lan tey la lundi encore la ma defar euh, ma defar retour mhm. bi ma defalee retour mhm. man dama sax euh, jommi xoolal déglu retour bi mhm. dem naa jeudi mu contrôlé waat bu sama kii bi sucre bi mais wàññeeku na wàññeeku na ba fi mu hmm, nekk ni maa ngi zéro virgule quatre-vingt-huit hmm. léegi dama la doon laaj nan laa war a def dama koy continuer wala ayca ma lay leeral maa ngi lay woolee may da ngay jokkoo yaay lu ne fànn kenn du ko jeex waaw du du du fabriqué du audio bu ñu montage mhm. du dara tubaab preuve la bëgg tubaab preuve la bëgg mhm. te gis nga ni ma leen defalee preuve si lii bi ni laay defee micro trottoir mhm. képp ku ma faj AVC di ma permettre ma ñëw ñu teg sa kanam dara jël la képp ku ma may turandoo di ma permettre ginnaaw yàlla ma ñëw nga wone sama turandoo ñu teg dara parce que droit de l'enfant dafa am xale kenn du ko génnee noonu dañ koy teg parce mm-hmm. que man xam naa li ma dama yor orphelinat mm-hmm. képp koo xamante ni man faj naa la rek mm-hmm. préparé te xam ne mama Talibé Cheikh na mi ngi préparé doy waar parce que aussi tamit ñi ko fiy def ñi ay nit gënuñu ma man mi liggéey man dama liggéey man man fayuma kenn man barke Seydina Mohamed su fekkee dama nam ma fay nit pour mu waxal ma lu baax lépp lu ma liggéey yàlla na tàkk man du ma fay nit pour mu waxal ma lu baax man gënatu ceddo moo ma sonal man lu ma mënul am sama bopp barke Seydina Mohamed du du du ma ko jëgaani ji. Mm-hmm. bu loolu paasee nag nañ ma baal ak bu fekkee wax ji am na lu ci débordé. ayca yaay fekkee am na lu gën jël ko. cherché hmm? bi. mais miracle diabète bi wax naa si. kon mooy miracle diabète bi. ayca léegi. jeex na jeex na mais yaay bi faj prostate mi ngi ñëw. siro bi ak garab bi nga xamante ni day. téeméer di leel ak téeméer bi nga xam ne moo lay tax a jeex. Mm-hmm. yooyu yëpp après prochaine vidéo dinañ ko présenté. am na tamit boo xamante ne dafa nekk en rupture. wa bii faj ndoxum si biir boobu tamit nit ñi def nañ si retour ñu bëri ñu ngi koy liggéey. waaw ñu si ñu ngi koy liggéey. kon produit yi kon produit yi mi ngi noonu. produit yi nga xamante ne moom mooy yu miracle. yu maman Talibé Cheikh na képp koo xamante bëgg nga ci rek nga woote ci numéro yi nga xamante dina jàll si à bas de l'écran def seen ay commande fépp foo leen mën a nekk muy ci Sénégal sous région ba si diaspora bi Talibé Cheikh na fépp la ay correspondant fépp fu waay nekk rek boo wootee si numéro yooyu produit boo mën a soxla di ko am waaye tam bu dee ñaan wàllu seet wàllu lépp loo jafe-jafe la lu nekk si nga bëgg ko yàlla euh, téyel boppam mhm. yal na leen yàlla fay mhm. yàlla sàmm yal na leen yàlla musaleeg pexem noonu ngeen yeggale seen ndaw seen saba man xale yu toll ni yéen damay tiit ci yéen ba fu ma toll dama leen di ñaanal parce que da ngeen a toll ci buntu tekki mhm. buntu jàppale seen bopp jàppale seen famille kon dañ leen a war a ñaanal ngeen ngeen am ak yu ëpp yu nu am yàlla sàmm leen yal yàlla musal amiin ci pexem noonu yàlla may leen mujj rafet a rafet a rafet a rafet amiin ci barke alayhi salaatu wasalaam amiin di ñaan suñu àdduna bi yàlla fi yàlla def jàmm amiin yàlla na yàlla seeral yépp ñu ci parti politique bi muy opposition bi muy këru kilifa diine këru kilifa nga xamante ni ay dëkkandoo lan diggante jullit ak catholique yàlla na yàlla def suñu ñëpp jàmm yàlla jàmmal ñu jàmmal suñu njaboot jàmmal njaboot yëpp ci barke alayhi salaatu wasalaam mbokk yi mi ngi noonu kon lii la woon ci li nga xamante ne moom la ñu indi woon ci ak mama Talibé Cheikh na ànd ci ak waa Galsen People ak waa Medina TV pour saa su nekk rek lépp loo xamante ne jàngoro la ci yéen wala ay jafe-jafe suñu borom ko ko defee rek mbokk ñu jox leen rendez-vous très prochainement ak un autre invité wala une autre invité euh, ci beneen gox incha allah jaa ngeen jëf